waxtaan wi ci seen xalaat ndax nit ñu bare doon nañu reetaan noyin bi mu daj gaal gi waaw lu ngeen yaakaar ne noonu lañ doon xoolee noyin ne dafa yembadi bu nit gëmoon ne li noyin doon wax dëgg la waaye bëggul nit ñi retaan ko mu xool noyin ba mu dugg ci gaal gi waaye moom mu bañ a dugg luy xew ndax kooku doon na mucc ca mbënn ma déedéet ndax xam dëgg gi rekk tax na nit mucc déedéet lan lañu lool di won ci mbirum yàlla nit ki dafa war topp li yàlla wax bu nit gëmoon noyin waaye ci xelam mu ne dina yéeg ci aw tund wu kawe ndax doon na mucc déedéet lan lanu lool di won ci mbirum yàlla yàlla sàkk na yoon wiy musal nit ba noppi nit ki warul def lenn lu dul topp yoon woowu bu nit gëmoon noyin waaye mu naan dafay nëgandi mu xaar ba buntu gaal ga muy fëgg naan nu ubbil ko xalaat ngeen ne kooku doon na mucc déedéet lu tax noyin doonu ko mën a ubbil ndaxte noyin tëjul woon bunt bi yàlla moo ko tëjoon lan lanu lool di won ci mbirum mucc gi bu nu yàlla sante dara dañu ko war a def te bañ a nëgëdi lan lañu war a def ngir mujj war nañu topp yoonu yàlla ci ngëm lu mat sëkk